asalaamaaleykum dama bëgg a wax ci vidéo bi ma doon wax ci yonent bi sallallahu alayhi man Modou Gueye gisuma yonent bi sama sama maam maamaatam mu gisul ku gis yonent bi man Modou Gueye ma ni kooku moo gën sama ndey gën sama baay waaw man est fonk naa yonent bi walla fonk ma ko man est-ce nangu naa li yàlla def wala nanguwuma ko hmm? bu fekkee li ma wax moom moo choquant wala li ma wax la nit ñi comprendre man dama ni dafa am boo xam ne bu fa tolloo boo gisee déggee ma ni gëm naa yonent bi ci li ko yàlla yónni loolu gëm naa ko gëm naa ni moo gën sama ndey gën sama baay loolu leer na ma dolli ni gëwma yonent bi moom ci boppam en personne parce que foofu la wax ji nekk mooy gëwma ni yonent bi moom a sàkk gëwma ni yonent bi la ñuy ñaan gëwma ni yonent bi la ñuy jaamu léegi ki ñuy jaamu ki ñuy ñaan ki nga xam ne moo ñu sàkk kooku mooy yàlla gëm bi may gëm kooku laa ko gëm man moo duggee dama am conviction wu sama xel loolu la ma jox foofu la sama xel yem mooy yàlla mu kenn la kenn du ko bokkaale kenn du ko dendale kenn yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la moom la yónni ci ñun ma accepté loolu lu ma yonent bi wax loolu laay def moo ma ni yàlla la ñuy gëm yonent bi neew ma fenn gi dégguma fenn fu mu ne ñu gëm ko moom dafa ni nañu gëm yàlla moom c'est un envoyé de Dieu yàllaa ko yónni looloo tax ma ni kon man yàlla rek laay gëm nangu ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom mooy jaam bi yàlla yónni ci ñun nit la yonent la mais du yàlla foofu laa doon waxee nit ñi dégguñu commencé di juger ku nekk di wax lu la neex ustaas yi génn def seen kii moo duggee safara la jëm Modou duggee nekkatul jullit moo duggee lii di juger ñoom ñëpp ay juger man laaj leen benn affaire lan la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ci fen neewul jullit du fen waa léegi kan Sénégal fii man je respecte maa ngi respecté nitu yàlla yi bokkuñu ci ban sénégalais moo mës a mën a taxaw ni musul fen te yonent bi nee na jullit du fen kan moo mën a teg kaamil ci loxoom ni musul fen kon kuy jullit senegal loolu rek lay laaj kan mooy jullit bu fekkee yonent bi nee na jullit du fen waaw léegi ku fen xam nga ni doo jullit ku mën a waat teg sa loxo ci kaamil ni musoo fen ba nga juddoo ba léegi maa ngi jégalu jërëjëf